salaamaaleykum mbokk waa Sénégal na def yéen a ngi si jàmm ah ñu de ñoo ngi nii ñu ngi toog ci nen tremblement de terre moo fi am Marrakech ak fépp ba na ay blessé sax nag ñun ñu ngi nii toog ba ñun ñëpp dañoo dañoo ba sonnerie yi nii dañ wàcc ñëpp suñu immeuble ñu ngi wàcc ci suuf nee nañ day amaat trois heures du matin ñu kañ dañoo jaaxle ñoo ngi nii jaaxle nañ trop sànni leen ñu ay ñaan jaaxle nañ de tiit nañ tamit tiit nañ loolu sax tiit nañ loolu ñun lii mosuñu koo gis bu mel nii moom musu fee am dégg naa daana fem waaye bii moom musu fee am bu mel nii ñëpp a tiit naar yéeg ñëpp tiit sànni leen ñu ay ñaan yal na fi gëj te yam fi tiit nañ lool sax nag. salaamaaleykum mbokk waa Sénégal na ngeen def yéen a ngi si jàmm ah ñu de ñoo ngi nii ñu ngi toog ci nen tremblement de terre moo fi am Marrakech ak fépp ba am na ay blessé sax nag ñun ñu ngi nii toog ba ñun ñëpp dañ ñoo dañoo bës sonnerie yi nii nañ wàcc ñun ñëpp suñu ëmb bi ñu ngi wàcc ci suuf. nee day amaat trois heures du matin ñun kañ dañoo jaaxle ñoo ngi nii jaaxle nañ torop sànni leen ñu ay ñaan jaaxle nañ de tiit nañ tamit tiit nañ loolu sax tiit nañ loolu ñun lii mu suñu gis bu mel nii moom su fee am dégg waaye bii moom mu su am bu mel nii ñëpp naar yeeg ñëpp sànni leen ñu ay ñaan yal na te yam fi tiit nañ loolu sax nag salaamaaleykum mbokk waa Sénégal na ngeen def yéen a ngi si jàmm ah ñun de ñoo ngi nii ñu ngi toog ci nen tremblement de terre moo fi am Marrakech ak fépp ba am na ay blessé sax nag ñun ñu ngi nii toog ba ñu ñëpp dañoo dañoo ba sonnerie yi nii dañ wàcc ñun ñëpp suñu immeuble ñu ngi wàcc ci suuf nee nañ day amaat trois heures du matin ñun kañ dañoo jaaxle ñoo ngi nii jaaxle nañ torop sànni leen ñu ay ñaan jaaxle nañ de tiit nañ tamit tiit nañ loolu sax tiit nañ loolu ñun lii mosuñu koo gis bu mel nii moom mosu fee am dégg naa daana fam waaye bii moom mosu fee am bu mel nii ñëpp a tiit naar yeeg ñëpp a tiit sànni leen ñu ay ñaan yal na fi gëj te yam fi tiit nañ lool sax nag salaamaaleykum mbokk waa Sénégal na ngeen def yéen a ngi si jàmm ah ñu de ñoo ngi nii ñu ngi toog ci nen tremblement de terre moo fi am Marrakech fépp ba am na ay blessé sax nag ñun ñu ngi nii toog ba ñun ñëpp dañoo dañoo bës sonnerie yi nii nañ wàcc ñun ñëpp suñu immeuble ñu ngi wàcc ci suuf ne nañ day amaat trois heures du matin ñun kañ dañoo jaaxle ñoo ngi nii jaaxle nañ torop sànni leen ñu ay ñaan jaaxle nañ de tiit nañ tamit tiit nañ loolu sax tiit nañ loolu ñun lii musuñu ko gis bu mel nii moom su fee am dégg naa daana fem waaye bii moom musu fee am bu mel nii ñëpp tiit naar yeeg ñëpp a tiit sànni leen ñu ay ñaan yal na fi gëj te yam fi tiit nañ loolu sax nag